asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 30 septembre 2019 ñëw ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb ba ci yëglekaay bii nga xam ne moo di record yëglekaay yi nag tey bu dee sunu làmb la moom que mu xëy séqal waxtaan mooy Amadou Kati Diop ma nga xam ne moo di entraîneur écurie Ndakaaru te yoroon ki nga xam ne moo di Yaxya Diop Yékini Kati Diop nag mu ngay ñëw di dànkaafu kii nga xam ne moo nekk roi des arènes jamono ji ñu nekk di Modou Lo Kati ne na ko dey li mu war a def mooy jéem a gérer lii nga xam ne moo di couronne bi warul def nag lu ko romb rek mu jël wala lu lu mu gis daal muy dem mu bëgg ko mu yóbbaale ko nee na loolu bu ci duggee moom loolu jàpp na ne day du yàgg ci moom maanaam daal li mu bëgg mooy loolu lim koy digal mooy mu xool bu baax a baax adversaire yi nga xam ne nii moom lay jël te moytu li nga xam ne ni day mooy adversaire yi nga xam ne yu dangereux la loolu moo di ay combat ay wax ji nga xam ne nii Amadou Kati Diop xëy na tey di ko wax ki nga xam ne nii moom moo di Modou loo waaye ñëw na ci ki nga xam ne tamit moo di Boy Niang Kati de li mu jàpp mooy nee na Boy Niang da koo bett lool lool nee na man daal fi ma ko doon séentu fi mu mujjee ñëw moom lu ma bett a bett la ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 ak la ko ci mujjee dal moom Boy Niang di defet moo tax mu ne moom kook da koo bett ka nga xam ne nag moom daa jàpp ne moom def na ay preuve am ci lamb ba nit ñi war koo bàyyi xel wala nangul ko moo di Ama Baldé Amadou Kati Diop mooy wax waaye itam am na lu yaatoo yaat loo xam ne day gën na koo ñëw ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb VIP am na lu mu leen xamal kati nee na leen yéen ñi duppe seen bopp ay VIP wala ngeen doon ko li ngeen war a def mooy seen kasi yi ngeen wàññi ko te jéem sëgg bëre moo gën yi ngeen di def nii loolu mooy ki nga xam ne nii moo di waxi kati jóob waaye tamit jàpp na ne day est-ce que bés mbër mu mel ni Yékini amatu ci làmb ji ah na du ko weddi de waaye daal xam naa du doon lu yomb moom loolu moom moo di ay waxam diggante moom loog la ca daal kii xam ne nii de moom moo di Eumeu Sène ci ñàkk mu ñàkk combat ba nee na moo ko yóbbee boppam na moom daal lu ko mënta dal loolu moom Eumeu Sène moo ko yóbbee boppam ndax nag moo de faute boo xam ne ndey faute bu rëy rëy rëy la Modou Lo nag profité ca la def ko la mu def te na man avant combat bi waxoon naa de doon naa wax ci moom mu corrigé li nga xam ne moo di ab defo ci moom waaye nee na nag loola defu ko moo tax li ko dal dal ko diggante Eumeu seen ak Balla Gaye numéro 2 moom li leer ba leer kati wax na ca nee na li am ba des daal dañoo war a bëriwaat bëriwaat dong lañu ñu war a def nee ñoom ñi nga xam ne ñoo di ay mbër yu mag nañu moytu seen moytoonte bii ñu nekkee te bëree jóge fi moo gën loolu mooy waxi Kati Diop waaye mu mel ni kii nag bu dee bëre Eumeu Sène ak Balla gay ca la wax ama seen moom daa mel ni lañ ne tontu lu forox moom la def ci yëglikaay bii di record Eumeu ne na leen li leer ba leer loolu moom bu ngeen yeboo nopplu te bañati cee wax ndax maag Balla gay du tey la ñuy bëri du suba te du ginnaaw suba dañoo bëreetul ñu ne déet waaye ëmma ne maa ko wax bëreetuma ak moom de juróom benn milliard buñ ma ko joxoon ca taabal ji taxutut ma sëgg di bëri ak Balla Gaye ñu ne ko waxee lanjang ji ëmma ne na li leer ba leer lanjang la mu wax la ñu déggul lanjang la mu wax waxut ay waxu ñu waat ndax na mu wax ku ko dégg xam ne waxul sax waxi bërewaat te wax la joo xam ne sax du wax joo xam ne lu mu estaf waxtaan wala nangam moom laaj nañ ko daal nga wax joo xam ne nañ ko nañ ko interpréter demewul noona waaye man ëmma seen daal li leer ba leer moom yabu ma waa Sénégal yabu ma it samay supporter waaye na ma fa waaye nañu dalal seen am xel juróom benn milliard buñ ma ko joxe ma man ëmma seen xalaatuma sëgg naan damay bëréwaat ak Balla Gaye ci kaw suuf record ñu ko xëy xamal tey ci xalima kii nga xam ne moo di Abu Nduur kon loola moom leer na nañ ñi nga xam ne ni moom seeni mbir dafa metti wala mu tar te li leen ko yóbbee mooy ay defet yu bëri mooy waa Grand Yoff mbooloo mu mel ni ki nag ñoom seize combats yi ñu am ci saison bii day boo bëggee dégg dëgg daal six victoire lañ ca am ak dix defet mel ni kon écrit Grand Yoff mbooloo boobu daal su wax fi mu nekk nii mu ngi koy def la ko koy yóbbee nag du lenn lu ay defet yoo xam a xam ne yu baree baree bari la yu am yëglikaay bi xëy ñëw wax ñu ko wan ñu li nga xam ne ni wala wax ñu ne Zarko moom ma nga xam ne ma doon tête de ba mu nga Espagne toog moom itam dem na fa nga xam ne moo di États-Unis jàpp boppam mu mel ni ki nag ki nga xam ne mooy Ndande Fall moom ma fa desoon ci mbër mu mag moom combat ya def moom dafa metti ci moom ndax nag ay defet yu méttee méttee métti la ca jëlee ki nga xam ne nag moo di Sélémélé moom moo góor fit wala Sélémélé ci boppam moom mu ngay dox di wane boppam bu baax a baax moom puissance dëgg-dëgg la àndal di dem waaye góor moom daa bett ñi nga xam ne ñoo ñoo di waa écrit ba ndax moom itam la mu am waaye ki nga xam ne moo di professeur Mané Fourière ñoom day opération ba ñu def moom baax na ba yegg ci lool lool loolu la yëglikaay bi xëy wax ñu ko ki nga xam ne tamit moom moo di Mayekor ak Drago ñoom itam ku ci ne am nga ndam ca sa li nga xam ne mooy sa combat am na fi ñeneen xale yoo xam tamit yëglikaay bi ñëw na ci ñoom mel ni ki daal kon Grand Yoff mbooloo moom boo bëggee dégg-dégg seeni fi mu nekk nii dox defu ko waaye ki nga xam ne moom dox na moom moo di Siteu Siteu nag yëglikaay bi wala boog gis nañ ko vidéo ci Leewtoo TV mel ni ki nag moom combat MMA ba mu doon def day gagné na ko mel ni ki kon bi mooy ñaari yoon boo xam ne Siteu mu ngay jongante MMA te di ca am li nga xam ne ni moom moo di ndam beneen xale ngi moom boo xam ne ci ay ndam la naj moo tax mu jara bàyyi xel muy koñaa numéro deux yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax na ko ne na day moom day bu bëggee dégg dëgg étoile montante la ko yëglikaay tudde biddiw la boo xam ne daal masha Allah mu ngay yëg di dem de ne nañ nag ko xel xale écrit ndakaaru bii nga xam ne moo di koñaa de ndax nag mu ngay wane boppam bu baax a baax a koo xam ne ni moom gis nañ ko kera fa nga xam ne nii day moom moo di ca Masaalikul Jinaan mu fay wane boppam mooy caatu montagne di ab xale boo xam ne day nee nañ saison bu baax la def nekk écurie Fass kera nag ay kafeek ay ndox daal la doon dajale ànd ko ak ay ñi nga xam ne ñoo ne supporter am di ko jox doomi aadama yi nga xam ne ñoo ñëwoon fa nga xam ne mooy ca masalikul jinaan yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ñu ko am na koo xam ne moom yëglikaay bi ne moom des koy wër dañoo xamul moom ngelaw ko fi andi woon dafa ñëwoon ngir di sóob wala daa ñëw ngir bëgg a tëgg ñu koy wax Ibou Diop Jimbo moom nag moo ñëw fan yële passé ne nañ daal di wax ne day ay combat la bëgg moo xam Gris Lac de Guiers 2 Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne nii moom moo di Tapha waaye ne nañ boobu ba tey nag gisee su ko moo tax sunu làmb ne moom daa ñëwoon ngir wut boos wala boog daa ñëw ngir nekk ab promoteur yëglikaay bi xëy tey di laajte boobu laajte waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi di sunu làmb ba tey ñëw na ci ak nun mooy làmb ji nga xam ne nii moo di làmb simple wala boog coow la am ca kaw la mel ni ki nag ki nga xam ne mooy Bira Sène moom daa mel ne am na ku ñëw nag di ko jàppale te coow la nga xam ne topp na ko muy Amadou Ba keneen koo xam ne ni moom ab saison la yëglikaay bi ñëw ñetti final yoo xam ne ni day na ko muy Boy Faye ak benn boo xam ne ni day bëriwu ko ak ñeent yoo xam ne perte na ko ak ñaari demi yoo xam ne tamit da koo perte moo tax yëglikaay bi ne Boy Faye daal la mu jot a dajale ci xaalis ren 3 millions mille francs la yëglikaay bi du sunu làmb xëy tey ñëw di ñu ko wax mu mel ni ki daal loolu moom mooy loo xam ne nii lu leer a leer la sunu sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko waaye li jara wax te jara leer mooy fan yi yàgg maar jàpp lii ma lay wax Masaalikul naan jàmm ji mu yokk ci Sénégal yàlla na gën a sax te gën a wéy yàq sax yàlla bu la yàlla may xel wala kàttan koo koy defee ndax nag jàmm gën lu dul jàmm te daa mel ni nag réew mii de la ma la waxoon dañ de mag ñi fi ne billaay bu ñu leen déggalee yàgg xalaat naa Sénégal dina gën a am jàmm te dina gën a naat kon nan ñaan jàmm rek di am fii moo gën a wóor. moo ko waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi mu nekk jàngat bu neex ndax Babacar ni nga jógee si week-end boo xam ne week-end bu neex la inauguration Massalikul Jinaan ak euh, juboo Macky Sall ak Abdoulaye Wade teg si démb ñu leen Khalifa Sall génn muy lu neex daal lundi bu neex pour sénégalais yëpp. man de Ndeye Comba ginnaaw mu la nuyoo nuyu internet yi man da jàmm daf maa gënal lu mu mën a doon. te yaakaar naa ne nee nañ jàmm ci la lépp xaj Masaalikul Jinaan nag comme ni ñu ko xamee maanaam néegub yàlla la boo xam ne nii ñu ngi ko tabax ndakaaru yaa ngi dégg pour jullit yépp ñu inauguré ko àjjuma ñu gis la ca topp ñoor ñoo xam ne àndoon nañu mu neexoon trop ñu dem ba jaxasoo am seen diggante ba ñu yaakaaroon sax dootuñu laalante yàlla def ñu juboo foofu kon loolu wan ne tamit diine du fo diine l'islam du fa wala sax même diine chrétien parce que diine bu mu mënoon ca ko ko gëm rek lu lu diis lay doon lu lu am solo lay doon kon yaakaar naa loolu moom ñun dañ ciy kontaan yaa ngi dégg Khalifa Sall it génnam dañ ciy kontaan ndax muy Khalifa Sall ak ka xam ne nii sax bantu alme lañ koy ci a doon rek ñëpp ay doomu aadama la kenn nekk ci kaso kon loolu itam contentement lay doon di ñaanal ñeneen ña fa des itam yal na leen yàlla génn ñëwaat ci seen ay famille si jàmm mais Masaalikul Jinaan bi moom ay feeyu marka daf see am ginnaaw Wàdd ak Macky église centriste yaakaar naa xam nga ko ay chrétien mbirum yëfu chrétien yi la yaa ngi dégg te xoolal tey julli ba jot nit ñi bëri ñu ubbil leen ko jullit yet def fa seen julli juma kon loolu Sénégal rek rek la am kon damay waxaat encore une fois que ni ñun Sénégal nañu gën a respecté wante gën a joxante cër et puis gën a nangulante gën a wegante yaa ngi dégg te bañ a nekk ay complexe xam lan mooy complexe maanaam man ma am mag ñu mel ni Serigne Touba maam Alaaji Malick maam Limaamu Laay maam Abdoulaye Niass ak waa Cene baak waa Kër Abbas Sall ak waa Kunti Yoog waa Njaasaan ak fu ne mag ñooñ ñi ci réew mi yaa ngi dégg ngay nangu ñu lay wax ay wax wala ñuy na sa xel ba mag ñooñ ngay am sa beneen bët bu leen di xoole te tey stabilité beeg jàmm ji am fii ñoom dañ ci am part de responsabilité bu rëy rëy rëy parce que loolu chrétiens yi def xoolal ñoom tamit rôle bu ama am solo boobu ñu def kon defe naa daal nañu wegantewaat am na sax mais nañ ko gën a dëgëral gën a am fulla ci sunu am réew jàppante ànd te yàlla tax loolu rek mooy li nga xam ne nii moom mooy li am solo di ñaanal xalifa yépp ba ci waa jàngu bi yàlla na yàlla guddal seen ay fan wéral seen ay cër barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàgg ñu yàgg ñoo digal ñu yàgg jëfe man de dama fierté ci sénégalais gi ma doon te li am fan yi passé gën na tax ma fierté samam réew waaw gën a fonkaat samam réew gën a wegaat tamit samam réew man Babacar defe naa senegal yépp actuellement loolu la ñuy dund addinaa tëdde noonu am na ñoo xam ne ni Babacar la ñu mel bëgguñu fenn fu jàmm di am parce que li tax moom am na ñoo xam ne ci ay wala ci coow la ñuy profité pour di am lu ñuy am ah loolu nag yàlla na yàlla def la ma maam Abdou Aziz baax doon wax ñi nga xam ne sax du ñu ñu ay ay ay aykat lañ mel ni Babacar yàlla na yàlla wañ seen ay xol bës leen ba indi leen ci jàmm ji ndax ci jàmm moom ci la lépp xaj ndey kumba faal amin Babacar wax ji am na solo ñu ñëw nag si jàngatu euh, journaux yi nga xam ni moom la ñuy moom noo spécialisé làmb te nag am nañu sunu làmb am nañu record ak euh, Leewtoo point net ak Leewtoo TV nu commencé nag li nga xam ni mooy euh, mooy sunu làmb sunu làmb nag te nañoo xëy dalal Kati too déggee Kati Diop moom moo créé école de Ndakaaru te mu yoroon ki nga xam ne moo nekkoon buuru arène bi muy Yaxya Diop Yékini ñëw na nag wax na nag si carrière ak potentiel adversaire Modou Lo Modou Lo mooy roi des arènes actuel bi euh, moom la ñu am comme roi des arènes euh, euh, actuellement donc moom daal nee na li mu gis daal mooy Modou Lo na moytu su buggee teekoon bi lu yàgg si si si si si loxoom na moytu adversaire yu nga xam ni mooy adversaire yu dangereux la loolu muy kàddu yi nga xam ne mi ngi jógee nag si si Kati Diop Babacar waaw Ndeye Coumba Fall Kati Diop mooy entraîneur écurie Dakar actuellement yaakaar naa ne moo formé sa écurie Dakar moom ñoom ko àndaloon Hmm, moo xëy waxee noonu ci Modou waa moom nag li ñuy wax rek lu yàgg ci njaw di njaw yaa ngi dégg te ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee ndax bu dul sa écrit Ndakaaru yaakaar naa Tapha bi mu nekk si digg ndëndëm di toj Kati moom moo ne woon entraîneur am kon tey nag su toogee def jàngat ah ni Modou Lo na moytu adversaire yu dangereux yi xëy na daa bëgg kon couronne bi mu yore mu téye ko lu yàgg mais nag adversaire moom bu mu ci mën a doon pour man yëpp a yaa ngi dégg yaa wu jaal sax booy bëree ak moom jàppal ne dafa pare pour daan la parce que dafa ànd ak ay mbokkam entraîné tey même bu Modou Lo jëloon yaa wu jaal jàppal ne am na adversaire bu dangereux ndax la tax yaa wu jaal jël ko mooy am na ci lu mu sukkandiku ngir jéem ko daan kon yaakaar naa Modou Lo pour man mënul am adversaire bu dan bu nga xam ne nekkul bu dangereux si làmb actuellement mënta ne c'est impossible pour man bokk wax dëgg yàlla ndax bu dee day day dafay doon bëreeg tafaatin tey day dangereux si moom parce que la muy bëgg la Tapha di bëgg mook Ama Baldé noonu lay mel ci moom mook Boy Niang noonu mook Balla Gaye noonu mook Gris Bordeaux mook Lac de Guiers mook Reug Reug mook keneen ak keneen làmb moom pour man adversaire boo jël rek yaa ngi si dansé pour man sut na nga nekk roi des roi des arènes euh, nee nag combat bi nga xam ne Lac de Guiers ak Boña def na ko nee na daal Boña da ko xaw a trop na xaala xaaru woon lu combat bi woon li mu bëree keroog ak la ki nga xam ne mooy Boy Niang. waaw loolu itam ba tey comme li mooy wax la rek moom xam na làmb xam na bëre formé na ay mbër Tapha Gueye Yékini rek doon nañ exemple yaakaar naa kon tamit bu xoolee ba jàngat ne Boy Niang jàpp la mu bëree moom lu ko bett la waru xalaatu xaaru ko woon foofu xëy na am fu am na fu mu ko teg mais itam Boy Niang it ki mu doon bëreel itam nag du n'importe quelle personne de. waaw loolu moom dafa jar a bàyyi xel la dëggee numéro 2 man Babacar dama ne bokk na ci mbër yi gën a jafe daan Sénégal actuellement parce li tax mooy du def lu mu xamul ci biir bëre lu xel lu xelam maanaam li li ko doy ci bëre lay def fi mu xam ne waru faa yegg du fa yegg ci bëre te am na réflexe te itam macha allah comme li ñuy wax du sumeeku si làmb nga ne amul doole kooku nag mën nga koo jël ngeen di bëre mais pour nga ñëw daan ko facilement dem c'est très maanaam lu difficile lay doon te boo xoolee ci biir carrière am gisaguñu mbër bu ñëw ne dafa corriger Lac de Guiers numéro 2 imposé ko daan ko jàll parce que itam euh, sportif. dafa war a am hygiène de vie war a sérieux te moom lool da nga koy gis si moom booy Niang nag xale la boo xam ne dafa am lu mu liggéey ba yegsi woon ci Lac de Guiers xëy na xëy na dafa waroon na attaquer Boy Niang Lac de Guiers bëreeg moom neneen mais itam xëy na moom bu ko yoroon dina ko bëriloo beneen façon bëri bu bokkul ak boobu mais est-ce que tamit su keroogee ndax Lac de dina ko bàyyi mu génn ci loolu parce que itam comme li may wax rek Lac de Guiers numéro 2 nekkul mbër bu ñuy saax saaxee di sama gis-gis man Euh, Babacar nu jógee nag si euh, perkat yi ni ñëw nag si bilan bilan écurie Grand Yoff mbooloo nee nañu euh, saison bi nu génn am nañu 16 combats 6 victoires ak 10 défaites nee ñu daal Grand Yoff mbooloo dafa dafa taxaw dafa mel ni seen seen ay laaf daal dafa tooy daal. laaf yu tooy quoi laaf de bu tooyee dootoo mën a naaw ndax balaa nga koy xam nga jëlam pitax rek sotti koom ndox bàkku du naaw maître Grand Mbooloo nag écrit la boo xam ne bañ ko keree yàggul noonu mais itam vraiment gis nañ ne que ñu ngi doon dox bu baax a baax ay champion fëlloon daan di faal ñoom Zarko ay mobile mais actuellement gis nañ ne que dafa dellu ginnaaw parce que tamit 16 combats nga am ci 10 défaites ak 6 victoires moom ça veut dire que loolu nag lu fa xew parce que itam xëy na manque de manque yu bi nga xam ne manque nañ ko ay tête de file mën na koo def xam nga mën naa mën naa def loolu quoi tête de file yi nga xam ne ni manqué na fa ndax Zarko gisatuñ ko mu ngi Espagne mobile duggoon na TFP bi ñàkk combat ya après dem na États-Unis daan di fal ñëw na bëri ñu daan ko kon tey ki nga xam ne mooy Libidor yaakaar naa toxu na jóge na fa dem na ci beneen équipe bi nga xam ne mooy Kayar ñoom a ñoom ñi nga xam ne ñoom ba ñoom bëgg fàlloog ay miiroog ñoom ñooñu fa ne nañu gën a taxawaat pour liggéey bi gën a intense parce que itam secteur ba ñu dëkkee mbër war na fa mën a am boo xam ne day bokk si làmb daal ñoom waa Grand Yoff Babacar su fekkee sunu làmb Kati Diop mi ngi wax ni que bëgg na gis troisième combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye dafa mel ni nag tey nag tontu bi am euh, leer na tey fii si journal ak sunu naataangoog bu bi nga xam ne mooy Abou Nour moom daal dafa xëy tey dalal ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène Eumeu Sène nag lu tubaab di wax il a clos maanaam tëj na débat bi nee na ak. plus de 60 milliards sax du tee du bëre ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy Balla Gaye nee na nag waxul lajaan yooyu noonu donc les gens mal interprété donc waxeewu ko waxu naan bëgg na bëreek moom les gens nee na wax ji daal dégg-dégg la laaj Babacar. waaw ama seen la ma la waxoon keroog laa lay waxaat rek dama noonu la dégguñu fenn ci kàddoom mu ne day bëreet ak Balla Gaye nit déggu ko. lan Lanjang nag moo gënoon def sorti boo xam ne nii waxtaan la woon mu seq ko Iba ah ci ni ñu déggee wax ji wala na moom na mu jàpp ne noonu la waxe mooy koo xam ne la bëreewuñu ak moom wala boog sax buñ ñu kii fayee nangam ñu wañ loxo euh, Eumeu seen wala nangam yooyu nag tekkiwul nekk dañuy bëre ak moom Iba Kane nag waleera na ci Leewtoo TV ne la ko la njang wax waaye Eumeu Sène nag mi nga xam ne mooy ndey mbil gi moom xëy na tey ci record wax ak abu Ndour ne na moom ak ay milliards bëreetul ak Balla gay numéro 2 loolu nag wax ju leer nañ la parce que dafa am loo xam ne nii nit ki su ko waxee nañ ko ko respecteel parce que la tax mu wax ko moom moo xam logique ba te Eumeu Sène comme li ma la wax rek nekkatul xale kilifa la tey ci famem kilifa la ci dëkk bi mais kilifa la tamit ci làmba kon bu jëlee benn décision ferme taxaw devant les micros ñëpp di ko setaan mu ne ma ak Balla Gaye numéro 2 dootuñu bëree kon su dellu siwaate ne day bëre ak moom ah bu keroog ni it nañ ko xoole neneen yaa ngi dégg xëy na nag doot du ma bëree ak diw wala bëreetuma ak diw wala dootuma gaaw a ak moom am na noo koy waxee loo xam ne bu ngeen bëraatee du jaaxal kenn mais Eumeu ton ba mu waxee ak façon ba mu waxee moom man Babacar foogatuma ne dina bëri ak Balla Gaye numéro 2 yaakaaruma ko de lamb nag comme li wax du biir deexee wasin waaye moom daal li leer ba leer moom mi nga xam ne mooy sëgg ci na nekk moom na wax jooju dak bëree tudd moom tey suba waxi noppi ak ay milliards waxi lañ jàng nag jàpp dañ ko interprète waaye nag saf euh, waxi lañ jàng bañ koo saf ak li am ba des daal moom ëmb ne na bëreetut ak Balla kon nag nañ jàpp loolu kon boobu wax ji leer na Babacar suñu jógee nag réseau corps ñuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xam ni que euh, combat MMA bi si si doon doon euh, bëree samedi bi de samedi dernier moom daal mujj na ko am si kaw euh, sportif boobu nga xam ne mooy c'est un américain mujj na am daal combat bi duré na plus de dix minutes finalement Siteu na ndam si kawam Babacar. waaw Siteu ñu koy félicité ah, ko baax a a félicitation di ko félicité tamit ñooy staffam moo xam ñi koy yore fii ci lamb ji ñoom suñu père Max Mbargane ak ay Peraline Diop ak ñi ko wër ñëpp mais tamit staff bi nga xam ne ñoo ko yor ci États-Unis ci côté MMA bi loolu tamit ay avancé la rek pour man ah, a def beneen sport am na solo trop kon félicitation Siteu di wax ne que bi moom pour man seentu asamaan la rek waaw wala seentu jant bi du jar boo parce que foo tax boo xoolee di gis kon nañ ko gën a yaatal rek am na solo daal MMA boobu am na solo Babacar si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu Astan di nuyu DG di nuyu samay doom euh, bébé Fallou bébé Rokhaya bébé euh, Junior bébé euh, Mame Diarra depuis Parcelles Assainies unité 26 Eva Diallo tamit yaa aussi am Aïcha Faye madame Niane naan ko dalal ak jàmm nga delluwaat si suñu biir Aïda Diouf aussi yaa ngi si biir. waaw di nuyu ñëpp rek di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm comme ni ñu ko waxee rek di ballu ñëpp ak ah, di wax ne rek encore une fois euh, fañ ko ubbee woon rek lañ koy tëjee waaw mooy que ni jàmm-jàmm ci réew mi daal yàlla na gën a sax te gën a dëgër ah, li gën a doy waar nag yaa ngi dégg mooy demalanteeg fekkalante loolu amul solo. li nga xam ne ni ay kilifa def nañ ko te yaakaar ne jàmm lay gën a yokk ci réew mi ngir yàlla ko ne bi nañ ko suuxat yàqkat yi nañu toog yaa ngi dégg jom de jóg dem ci yàggamaar ne ko Babacar nii Babacar naa ngir ngir jàmm bañ am ngir yow ngay exister loolu doomu aadama ko war a jomb yaa ngi dégg nañu am yoo xam ne dañ koy moytu defar moo gën yàq yàq amul benn njariñ kon yàlla nañu yàlla tàppel suñuy xol na ko dabaax doon waxee yàlla indi ci réew mi naataange barke yonente bi sallallahu alayhi wa ne yàlla sàmm leen barke yonente bi sallallahu alayhi wa di nuyu ñëpp di nuyu sama mag docteur Macoumba Diouf meeru Lat Mengue maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak sama mag tamit sama xarit sama meeru commune maître Pape Sène di ko nuyu di ko ñaanal jàmm moom tamit bu baax a baax a baax di nuyu waa commune Ndondo lépp waa Bawol sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu du mën a ñàkk xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak di nuyu yàgg maar moo newoon si caméra bi xam nga Fall moo nekk si montagne ak tonton Diaw ñu nuyu ñu ñëpp ziar ñëpp Aïda maa ngi lay bëgg bu baax a baax Cédric Diédiou borom logistique bi gën a la yokk sa loxo séddoo du mën a ñàkk faw logistique bi gën a avancé accélérer la canas yàlla na jàmb am Sénégal yal na jàmm am Sénégal waaye yàlla na wasaaru si àddina bi. amin